développement nag bu koy wax faaw nit ki jiital xam-xam fan yii maa ngi gis débat bu am solo ci télévision yi ci Barça ak Barsax yombul résoudre nag ndax nit bu fekkee ni dafa juddoo ca kaw te xamul commune département Khamoul région Khamoul capitale guin dem ci réew mu gën développer développé réewam fi nga yow ci développement mon fa mu ne bëtam dafa jël loolu la pauvreté may ci réew moomu ba yëgu fa xiif ak feebar ñàkk fayu pauvreté ci biir réewam may ko loolu kon kooku ban communication bu stratégique nga mën a teg pour convaincre ko ba mu dellu si waat ndax fi nga toll di wax moom yow ci sa réew bëtëm la ko may doonte sax ci pauvreté lay ma di sax lu mu amagul te bu bëggee faju faju te du fanan ci mbé mi ngi daw ci tali yu bax courant du fa coupé ndox ñakku fa dund ñakku fa donte amagul lu mu bëgg wa lolu boku ko wax ne ko bayyi ko fa delu ci ci li nga nekkoon kooku du neex a problème bi loolu lañu wara safara ba nopi waxuñu kenn bu mu dem waaye fi nga fi nga bañ mu dem fa da leen di laaj ñoom lu ñu am lan la nga proposé benn politique boo xam ni kat mën nga dajale fukki nit yu am xaalis ne dañu bëgg a jël gaal boo daj boo dajalee xaalis bi ba mu mat nga leen ah man de xayma naa ne am ngeen fukki million waaye fukki nit yu fi dajale fukki million dinaa leen dimbalee vingt million te ngeen toog fi waaye li ngeen nag ci sama loxo lay nekk man maay définir politique waaye bul dem te joxuma la lu tax nga toog kooku nit mënu ko dégg bi ci des mooy da ngay gis ni léegi Europe boo ko jaaree ci yoonu suuf Saint-Louis mooy buntu Europe ci Sénégal xaw ma beneen yoon boobu foo ko mën a jaare daal moom foog nga koy jaar dugg ci réew li ko dalee Ndar jàpp Louga Louga bi nga xam ni raison euh, dat nañu ci Léopold Senghor mi doon wax ni diisoo ak nappkat yi diisoo ak baykat yi diisoo ak sàmmkat yi Et l'ouest, des régions du plus stratégie Sénégal pour le développement de notre pays Disso ak baykat l'ouest Louga Kati, Disso à napokati ak saint produit à am diisoo ak sàmmkat yi Louga daara quatre-vingts kilomètres léegi nag li ëpp ci sunu fungu réew di ceeb daal di féete ci région du fleuve géej gi di yéeg dex gi di yéeg buñ ko tojoon tooyal ci àll Louga boobu yépp xale yooyu di dem ci géej nga ni leen lu ngeen am ñu ne ah ñu ne famille lañu waaye bi ñu dajalee kenn ku ci nekk yor na un million cinq cent bu mu waroon tukki nga di leen kaay leen léegi man dinaa pej suuf si dinaa pej ndox mi koyal suuf si encadré leen ci ban façon kuy toppatoo gàncax doo dëkk ci taax li des ci àll bi président génne eaux et jël masalan par exemple trois cent hectares jox la bien aménagé gox bu nekk la fa doon garab ñu war ko reboiser lu dugalaat ko bu nawetaan jotee gox bu nekk la ñu am ci ASC ñu yóbbu leen foofu tabax fa ay saal yu mag muy saal yoo xam ni buñ ko defaree kenn dootul gàmmu ci mbedd kenn dootul sabaru ci mbedd kenn ku liggéey bisum ci mbel bi 300 hectares mën nañ dafa defal ay saal yu mag yoo xam ni boo fa doon toj Sénégal kenn du ko dégg bu ko defee ñoom ñu di ko loué bu nawetaan jotee nga dajale fa ASC yëpp seen maire toog seen ministre toog directeur yi am toog encouragé leen waxtaan ak ñoom jox leen jeu de xaalis. bu buñ fay jógee nag kenn ku ci nekk nga fexe ba jox ko dix mille plantes ne ko sa activité nawetaan na ci reboisement bokk bu ko defee ñii feebar nekk ci hôpital yi kuñ ci faj ña la del dox fooy doxe kon jardin botanique bu mel ni bii nekk ci ànd yu mel noonu la ñu war a reproduire ci réew mi génnee eaux et forêt ci taax yi yóbbu leen ci àll bi jox leen nit ñi ñu encadré leen oto yi jóge Maroc di fi indi mandarine Tiwaawan pour jàpp ñaay bi yépp suufu la waaw ñële jële seen mandarine ñëw tuur ko ci suñu réew wëlbati ko waroon a yóbbu mango yooyu ñu bàyyi ko muy dox nit jóge fii ci Dakar yow ma yoro nga yor cinq millions Habib ba yor deux Thierno nga yor trois keneen yor quatre ñu jëm Daara Jolof pour uti nag amoo banque boo ko def amoo hôtel boo fanaan nga dem bàyyi ko ci loxo ñiy jaay liquidité nga dem fa fekk ku yor deux cent sept bis bu ne mu gàddu yet sol daal topp nag bi di dox mel ni ko amul lu mu lekk te li mu yor alal la mënul naan meew mënul defar beurre mënul defar fromage foofu la débat bi nekk waaw dañuy seet ñun li ñu am te mu nekk fi te nekk suñu loxo ci loolu ngay développé sa réew waaye la keneen am te jotaguloo ci boo ciy def sa xel te jotaguloo ci doo ci déglu nga sëlli nit boo bëggee lekk da seet li nekk ci sa loxo loo ci mën a jënd foofu la lekk commencé waaye mënoo yor lu dul ñaar téeméeri dërëm bëgg a xalaat ceeb yàpp mënul nekk bi ci des ñu fexe ba aussi problème mu yi ñu doon wax. taalibe du jàng mercredi soir te mooy wax taalibe mooy ñun du ñu jàng jeudi du ñu jàng vendredi matin te yow ki la war a toppatoo moom bés yooyu ma nga ca bureau kon mënoo xam ki nekk ci mbedd bi ak ki nekkul ci mbedd bi samedi ak dimanche yi ngay noppalu jamono bi ngay noppalu ki ngay toppatoo moom ma nga ca waaw kon lu gënoon bu dee ci masalan taw tiwaawan bi may jël nga defar ay centre de formation nga seet corps de métier yi nek bir ICS nek tayba nek jogo nek phosphate de Lamlam nek phosphate de Thiès ñu jël métier yoyu di ko fa jangal bu ñu paré contrat bi daara ji di am wala jëm dëkk bi bi ñuy am ak ak ak industrie yoyu mooy chaque fois bu fa nit foofu la ñuy jëlee nit yóbbu ko foofu directement embauché moment boobu nag xale bi xëy na du àgg ci maturité pour gérer xaalis mais bu boobaa dañuy définir benn politique boo xamante ni tey mën nañ ni ah meeru Tivaouane jox ma danga jox mille hectares

te liy fay kër gi mi mi koy liggéey mu di ko fayeeku loolu bu amee dootoo gis ku taxawaalu ci mbedd parce que automatiquement bu fekkee ne am na métier nga rassuré ko ni métier bi ko jàngee automatiquement ci industrie yi ci benn la ci war a xam na ni salaire am koy xaar kon kooku di am di dem ba am ay modèle waaw yoo xam ni fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin danañu mën a jël réew mi te fekk danañu am diine am jikko parce que li xew yëpp am jot a ko waral sunu maam Cheikh Seydil Hadji Mansour radiyallaahu anhu dafa am benn jamono benn amoon mébét ne daal bu ko yàlla mayee doom bu góor moom la koy tuddee yàlla may ko na ko la ko jabar ji wasin rek mu daw xabaar ko ko mu ne ko eh, na nga fexe ba ba mu am jotaan dana fexe ba bu mu am jot moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax waxam bu rëy bi ne inna allaha yarzuqu al abd ala qadri himmatihi waaw volonté ni fi xam-xama ni ci réew mi bëgg-bëgg baa ngi fi waaye nag ak lan waaw te nag yooyu bu amul nit ñi du ñu mën a cotiser pour fay impôt pour ñu mën que nit bu fekkee da nga bëgg mu fay impôt da ngay fexe ba mu am liggéey te am revenu parce que daayira ah ku ko samp te bëgg a nga cotiser boo cotisé foo fooy jëlee nag fooy jëlee chaise fooy jëlee tente xëy na du ñàkk soutien kon pour sa doomi réew di cotiser pour nga mën a am lampe mën a am courant bu doy mën a am ndox mu doy mën a am dëkkin bu dëkkuwaay bu baax da ngay fexe ba ñi fi nekk am liggéey te pour ñu am liggéey mooy nga créer ay centre de formation ba pare ñu nekk euh, industrie yi fi nekk lañ fay liggéey ñu di ko jàngale foofu nga xam ni yow formé nañ la tey industrie bii nga war a jëm buñ demee tey ba fin d'année jot ñu ni kat am nañu fukk yu war a retraité kii ci wàllu lii la kii ci wàllu lële la ñu dugal dossier boobu fekk am benn promotion buy génn ñu jox ko ñële yooyu moom mooy yi fi nekk moo gën nit ñi ñëw samp fi seeni usine samp fi seeni industrie dema dema dema dema dema dem ba daanaka la fi nekkoon démb ak bërki démb mooy li fi nekk mooy jël sa doomi réew ñu mujj doon ay surga waaw te loolu li ci gën mooy da ngay dimbale samp koo xam ne mënu laa rëcc koo xam ne ci réew mi la dëkk nga jàppale ñooñu ñoom it nga taxawu leen nag di seet la tax nga jàppale leen est-ce que ñi ngi koy def wala te bañ a xeeb nag benn liggéey